mbokki déglukat yi salaamaaleykum nu ngi gërëm yàlla ci li nu fi mën a teewaat di leen dëgtal seen émission yoonu njub bi ngeen di topp ak teewlu nu ngi leen di sant ci xalaat yu am solo yi ngeen ñuy yéwéne saa yu nekk ba léegi nu ngi wéy ci njàngum fukki ndigal yi yàlla dénkoon yonent yàlla Muusa ak bànni Israël ngir ñu xam ni yàlla selle teg ci ràññee seenuk sell di ci émission bi weesu nu ngi woon ci juróom ñaareelu ndigal li fi yàlla ne bul njaaloo mu di ndigal lol am na solo lool te mata yéene mu jëm kaw na ci jamono ju rëb ji ndaxte li ëpp ci nit ñi joxuñu sëy gëdd ba ca war dañu dëkk ci ñàkk sellal sëy gu ànd ak maatey moo na ku nekk gis na toroxte ak tumuranke gi njaaloo tàbbal ci yenn kër yi gisoon nanu it ne njaaloo yamul rekk ci jote ku dul sa soxna walla sa boroom kër yamul ci li ngay def ak sa cëri yaram waaye dafa ëmb itam li nekk ci biir xol yeeg xel yi moo tax yéesu waxoon bés ne képp ku xool jigéen xedd ko njaaloo nga ak moom ci sa xel li wér mooy faw yàlla aji sell ji mbugal ca safara su dul fay mukk bépp njaalookat bu bañ a réccu te nangu yoonu njub wi mu tëral ndaxte mbir mi nee na xanaa xamuleen ni ñu juba jubadi duñu bokk ci nguurug yàlla bu leen ci kenn nax ñiy doxaan walla xërëmkat yi ak njaalookat yi ak góor jigéen ñi ak ñi ko nangu walla sàcc yi duñu bokk ci nguurug yàlla te am na ñu meloon noonu ci yéen waaye yàlla fóotal na leen seeni bàkkaar sellal leen àttal leen ni ñu jub ci turu borom bi Yesu Christ ak ci dooley xelum yàlla sunu borom. bu loolu wéyee tey dañuy jëm kanam ci fukki ndigal yi dugg nag ci juróom ñetteelu ndigal li mu di santaane bi yàlla naan bul sàcc ndigal lii nag leer na ba daanaka matul woon faram sax waaye dégg-déggu nit mel na noo xam ne faaw nu waxtaan ci te su yàlla demee ba fàggandiku ndigal lu mel nii ci mbind mu sell mi fekk na booba muy lu mat a bàyyi xel moo tax nu fas yéene gëstandoog yéen ci laaj yii di kan mooy sàcc lu tax yàlla tere sàcc bala nuy tàbbi ci yooyu laaj nag xanaa nu jëkk a fàttali rekk ne jëf jii di sàcc mooy jël yëfi jàmbur ju la kenn mayul loolu moom deesu ci werante sax léegi nag ana kan mooy sàcc loolu kay mooy wax ji kon sàcc moo di képp ku jël lu ñu la joxul ci anam bu mu mën a doon su boroom àndul ca jël ba sàcc nga lu këf ko tuuti tuuti lu mu ñàkk ñàkk solo nag ku def lu ni mel ab sàcc nga waaye léegi nit ñi dem nañu ba ràññeetuñu luy sàcc ak lu dul sàcc ndax li ñu ñàkkal fula yenn xeeti sàcc yi moo waral yenn sàcckat yi teguñu sax seen bopp ay sàcc nit ñi it jàppewuñu ak càcc loolee muy def ci misaal dangay gis nit koo xam ne wóor na yàlla wóor nit ñépp ne la mu mën ak la muy def de peyooru weer keese taxul mu mën ko ay moroomam yu mu tollool ndomba tànk ñu ngi fi te mënuñu li mu mën moona dàqu leen a yaxanal te gënu leen a fàggandiku kon leer na ne sawaay moomu am na leneen lu muy def loo xam ne moo ko tax mën li mu mën waaye ndegam ma nga cay mënal gaañi di ci jëf jëf yu baax ci yenn bërëb yi ñuy tudde kër yàlla di ci baaxe ñenn ñi ñuy woowe niti yàlla du yàgg ba kenn gise li muy def nik càcc walla ñu jàppe ko moom ci boppam nib sàcc bu amee ñu seen xel romb loolu sax naa feq yi duñu ko ko wax mukk ndax njariñ lañuy jële ca moom noonu nit kay def loolu ci alal jooju yaakaar ne jëf yooyu mën nañu setal alal jooju te mu jële ca ngërëm njëgal ak yërmande yàlla nax na boppam te li wér mu war ko xam mooy du rëcc mukk ci mbugalu yàlla ndaxte ci bëti yàlla ab sàcc la su reccuwul bañ a wëlbatiku ci borom bi ba yoonu mucc wi mu tëral amul benn werante ne yàlla dina ko mbugal bés mbugal googu nag mën naa tàmbale fii ci àddina sax ndax bés bu ko yoon dabe dina daj mbir waaye lu mbugal googu tartar ga koy xaar ca laaxira moo ko raw fuuf mbokki déglukat yi sàcc yi sàcc ay million wala ay milliards di ci def luy samandaay ak mbaax ñook sàcc bi këf caq yi ak sàcc biteeli gaas yi ñoo yem kepp fa kanam yàlla su fekkee sax nit ñi yemalewuñ leen ndaxte li yàlla wax moo di bul sàcc kon koo mën a doon loo mën a sàcc nu mu mën a toll ak lu mën a sabab càcc ga xamal ne jéggi nga sàrt bu yàlla ci boppam tëral ci noonu nanu bàyyi xel ci ne càcc am na wàll yu bare càcc yemul rekk ci fekk yëfi jàmbur yu ñu teg nga fab ko waaw ndaxte yow mi sa njaatige dénk ab liggéey di la ca fay fekk doo liggéey waxtu yu doy di tappale rekk ngir waxtu wi dem bu boobaa sàcc nga yaa ngi sàcc sa xaalisu njaatige bi mu lay fay te liggéeyoo ko ki nga xam ne itam dafay xëysi ci bérébu liggéeyam taal rajo bi bàyyi fa mbaa mu summi mbaxanaam teg daldi génn ku fa ñëw soxla ko ñu naan ko dafa génn mu ngi ñëw sorewul fekk feni kese la ndaxte la des ca bëccëgu keroog boobee deesu ko fa gisati nga yaakaar nag ne yow miy def loolu doo sàcc ah kay yaa ngi sàcc sa njaatige mbokki déglukat yi loolu baaxul ci benn këru liggéeyukaay dafa koy taxa daanu baaxul it ci koom-koomu réew mi faaw nit ñi xam loolu te dog ci waar ndaxte su dakkul ba bërëb liggéeyukaay yi daanu du kenn nit ka doon dëngal rekk a ko yëg de boroom njaboot yu bari dañu cay doxe ñàkk am xëy fitna ak toskare tàbbi ci seeni njaboot moo tax mbir yii kenn waru leen a sofantel naan ah garaawul ah garaaw na ndaxte du def lu dul lawal fi ndóol yàlla nag moom mu ngi wax ay gaayam ci linjiil naan nangul leen ci lépp seeni njaatige yi ci àddina bu leen ko def rekk ci seen kanam di sàkku ngërëm waaye na nekk lu dëggu ci yéen ndax seen ragal borom bi lu ngeen mën a def na ci seen xol tàlli ngeen def ko ngir borom bi te du ngir nit xam ne boroom bi dina fay seeni jëf mu di cër bi mu leen dencal yéesu Kirist mooy borom bi ngeen di liggéeyal ba tey ci xeeti càcc yi bokki yi su nit defee ay pexe ba jot ci alalu jàmbur ci luy samandaay yoon càcc la ci misaal dafa mel ni yow mi nit dénk këram mbaa boog ñu wóolu la dénk la weneen xeetu alal nga dem ba jëmmi jamono daldi bëgg a teg loxo ca alal jooja mu jaral la dugg ak génn yéeg wàcc ba alal ja nekk ci sa tur moo xam lu ko mën a sabab nag ak foo mën a sukkandiku waaye loolu njublang la càcc la yàlla nag moom mënula ànd ci loolu su fekkee sax àttekat yi gën a ràññeeku ñoo ko dogal yàlla mënu ci ànd ndaxte sàcc la te yàlla aaye na ko xarit yi li tax yàlla tere sàcc nag moo di càcc lor sa moroom la te it lor sa bopp la santaane bii di bul sàcc dafay tekki ne danu war a ragal yàlla te bëgg ko ngir bañ a fab sunu alalu moroom waaye nu dimbale ko sax ci ñoŋal alalam li yàlla bëgg mooy ku nekk wek sa moroom di ko sàmmale lépp lu mu moom te it coobare yàlla mooy kenn ku nekk daani dooleem yem ci li mu ko xéewale mooy li mu sant taalibe yeesu yi bi mu naan ku daan sàcc na ko dëddu te jublu ci liggéey lu baax ak ay loxoom ngir mu mën a dimbale ñi néew doole yàlla yemul rekk ci bëgg ay gaayam dëddu càcc dafa bëgg itam ñu jublu ci liggéey lu baax ci seeni loxo ngir am lu ñu mën a may ñeneen ñi nekk ci soxla ñi nga xam ne nag bëgguñu daani seen doole lu dul defi naka sudul noonu kàddug yàllaa ngi leen di artu naan sàcc yi du ñu dugg ci nguuru yàlla aji kawe ji ci lu wér ndegam artu yu leer nañ yi yépp ñu ngi ci mbind mi ana lan moo waral kon nit dëgëre bopp nii te bañ a déggal yàlla te lan moo tax càcc gi tëw a dakk xanaa di gën a law xam naa yaa ngi naan ah loolu koy jarul a laaj polis a deful liggéeyam te njiit yi it defuñu li leen war ci fàggandiku mbir yooyu wutal askan wi am xëy teg fii kaaraange gu doy ak nangam ak nangam nga baal ma waaye su fekkee loolu moo di sa xalaat juum nga ndaxte jafe-jafe bi dëgg du kilifa yi du polis bi doonte sax am nañu wàll ci sas wi leen yàlla dénk ci loolu lépp gis nga boo demee ci kaso yi ñu ngi fees dell moo na terewul gaañi mel ni ñu gën a ràkkaaju lii itam am na boo seetee dinga gis ne sàcc yi nekk ci biti kaso yi ñoo ëpp fuuf moona ñu bari ci ñoom xam nañu bu baax li leen di xaar suñu leen jàppee wante taxul ñu rëggal kon leer na ne jafe-jafe bi feneen la fudul ci càggante kilifa yi walla ñàkkum jumtukaayu ñi féetewoo kaaraange gi réew yi seen jumtukaayu kaaraange doy sax terewul càcc ga takarnaase fa kon jafe-jafe bi nit am ba tax mënula topp ndigalu yàlla bii di bul sàcc mooy bàkkaar bi dëkk ci xolu doomu aadama wante mbugalu sàcc ni beneen bàkkaar bu mën a doon moo di dee tàqale ko ak yàlla ba faaw moom la yàlla wax ci mbind mu sell mi ne peyu bàkkaar mooy dee kon sàcc bi sax ci càcc ba xëy wuy ji boromam safaraa koy xaar fa mu jëm kon yow muy déglu te sab loxo di dem mën na am bëgg nga ci génn wante bul xàddi man daal amatuma yaakaar ndax fu nekk dem nanu fa maak samay mbokk ngir ñu téye loxo bi waaye dara bul xàddi waaye itam bul tegati sa yaakaar ci sa kàttanu bopp wala ci pexe keneen ngir génne la ci ay yooni yoon a ngi nii ngay jéem di tële ñu lay baaxe pexe yu dul àntu ba sa xoli mbokk jeex tàkk xamal nag ne yaakaar ju wér am na yàlla fàggandiku na pexe mi la ci mën a génne pexe moomu ci Yeesu Kirist la ko yàlla jaarale su fekkee ne soxal na la fi nga war a tàmbalee mooy nga jëkk a xam ne yàlla aji sell la te mënee su ko jege ci ñàkk a sell nga nangu it ne bàkkaarkat nga ni bépp doom aadama ndaxte ñépp bàkkaar ba joteetuñu ndamu yàlla te nu nu ko gise tey ji nun ñépp ay sàcc lañu fa kanam yàlla aji sell ji kon pexe mi nekkul ci nit nga gis kon ne pexe mi yàlla joxe ngir doom aadama yépp mën a tinkeeku ci nooteelu seytaane mooy deewu yéesu Kirist mi tuur deretam ca bant ba ngir fay boru baakaar yi ñépp te it nga xam ne yéesu mi dee dekki woon na ca ñetteelu fan ba yàlla dafa ko dekkal ngir wone ne yeesu rekk moo mësula def bàkkaar noonu ngir am dund gu jeex te nga mucc ci fab alalu jàmbur ci anam bu mu mën a doon faaw nga gëm ne deretu yéesu tuur na ngir raxas la ci bépp bàkkaar te dekki na ngir may la dund gu dul jeex ndaxte mbind mi nee na yàlla jébbale na yéesu kirist ngir sunuy tooñ dekkal ko ngir àtte nu jub kon boo ko gëmee yàlla dina la boole ci ñiy jële ci moom bés bu nekk kàttanu jubal ci lépp ndaxte jubal rekk a am solo fa kanam yàlla waaye soo gëmul borom bi yéesu doo am kàttan gi la koy taxa mën bés bu nekk déglu leen li mbind mi wax ci mbirum gaayi kirist yi laata ñu doon gëm xabaaru musalkat bi yeesu linjiil nee na ndaxte nun itam ñu ñàkk xel lañu woon te déggadi ñu réer bay jaamu ay bëgg-bëgg ak i bànneex yu wuute ñu dëkk ci ñeetaange ak coxorte di ñu sikk tey sikkante waaye naka noona yàlla sunu musalkat feeñal na mbaaxam ak cofeelam ba musal nu ajuwul ci jëf yu jub yu nu def waaye ci yërmandeem rekk mu laat nu ci laabal sunu xol te yeesalaat nu ci dooley xel mu sell mi mënu sotti ba mu baawaan ci daraja Yeesu Kirist sunu musalkat ci noonu yàlla àtte nanu jub ci kaw yiwam te seddu nu ci dund gudul jeex gi nuy séentu kon fii lañuy taxawandi tey ba njàng mi ñëw ndegam neex na yàlla bu ko defee nu gëstandook yeen ci juróom ñetteelu ndigal li nu ngi leen di gërëm ci teewlu bi te di leen fàttali ne su ngeen amee ay laaj ci lu ñu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddug yàlla wax way gëm yeesu yi ne ku daan sàcc na ko dëddu te jublu ci liggéey lu baax ci ay loxoom ngir mu mën a dimbale ñi neewu doole